kenn rek moo am li nu soxla. muy suñu borom. muy suñu borom subxanahu wa taala. dong yi lañ koy ñaan moom dongit lañ koy ñaan. yaakaar ji ñu ci am. yaakaar ji ñu ci am. incha allahu du ko tas incha allahu rabbi. du ko tas du ko tas. ud'uuni astajib lakum la wax. nee na yàlla moo ni ñaan leen ma ma may leen. te rasul sallallahu alayhi wa sallam wax na ni. te nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni. ud'uuni. nee na ñaan leen ma. أستجيب لكم أستجيب لكم من نقول لين وحنا وحناني ينتبه وحناني ادعوا الله نينا نيان لين يلا وأنتم موقنون بالإجابة جنجين دوغو تيين لين دي نيان يلا نانا لين كو نقول أمنا يقينا كون نينا أمنا يقينا سنو نيان جي ني سنو نيان جي إن شاء الله يلا إن شاء الله ربي يلا دينا كو نقول كون نينا نيون يب نيو dalal loko bokk ñaan بسم الله بسم الله waaw kayfiya bu ñu ko defee rek baax na. nee na kayfiya bu ñu defee salatu ala nabi bi rek baax na. bu ñu noppee ñu teg ci fatiha. bu ñu noppee ñun ñëpp ñu bokk jàng fatiha. tegaat ci ñetti salatu ala nabi. tegaat ci ñetti salatu ala nabi. yal na yàlla nangu. nee na yal na yàlla nangu. bu nangoo itam yal na nangoo ni mu tolloo. nee na bu ko yàlla nangoo yal nañu ko nangule ni mu toll moom yàlla. yal na barkeel. yal na barkeel. ci boroom jublu. li ci boroom jublu. te mooy ki fi woote. te mooy ki woote jataay bi tey. yal na ko ko yàlla defal. nee na yal na ko yàlla defal. ba defal ko lu ci lu kowe njortam. ba defal ko sax lu kowe njortam. li mu bëgg. li mu bëgg. moom rek moo ko xam. moom rek moo ko xam. moog yàlla. moog yàlla. yal na ko ko yàlla defal. ko yàlla defal. ñun ñi ko teewe itam. nee na ñun ñii ko teewe ñu yal na yàlla fajaale sunuy aajo. yal na yàlla fajaale ci suñuy aajo. yal na yàlla jox nu wér. yal na yàlla jox nu wér. yal na yàlla bàkk jégal nu sunuy bàkkaar. nee na yal na yàlla jégal nu sunuy bàkkaar. yal na yàlla guddal fan yi. yal na yàlla guddal fan yi. bi xurmati nabiyina Muhammad. bi xurmati nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. bismillah. bismillah. auzu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahiim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا امورنا بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا باب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين ربنا تقبل منا دعاء إنك مجيب الدعوات وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلم تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها قال درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات بحرمة اللهم صل على محمد صلاة دائمة صلاة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القمر بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس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 asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa taala wa ci kàddu sëriñ Seexu Canaba. nee ci kàddu Seexu Canaba. sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Seck. sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Seck. di xalif généralu Tidiane Canaba. Canaba. ci la ñuy yëkkatee kàddug nuyoo. ci la ñuy yëkkatee kàddug nuyoo. bu ànd ak ziyaara. bu ànd ak ziyaara. ànd ak ndokkeel ak ñaan. ànd ak ndokkeel ak ñaan. wàcce ko ci doomam. nee noo koy wàcce nag ci doomam. wàcce ko ci rakkam. noo ngi koy wàcce ci ay rakkam. ci ay xaritam. ay xaritam. ay wëllëreem. ay wëllëreem. mbokki taalibe yi fi teew. mbokki taalibe yi fi teew. di ay sëtam. di ay sëtam. di jël nuyoo boobu. di jël nuyoo boobu. di ko teg ci ki ñu fekk ñu jiital ko ci jotaay bi. di ko teg ci ki ñu fekk ñu jiital ko ci jotaay bi. muy Serigne Souleymane Seck borom xaas. muy Serigne Souleymane Seck borom xaas. donte ay magam a ngi fi. donte ay magam a ngi fi. mu jëlal nu ko. mu jëlal nu ko. tegal nu ko ci seeni loxo ñoom. tegal nu ko ci seeni loxo ñoom. di Serigne Khalifa Ibrahima Seck. ku mel ni Serigne Khalifa Ibrahima Seck. di nuyu Serigne daam Seck itam. di nuyu Serigne Ahmad Dame Seck. di nuyu njabootu Cerno Abuja gi fi ne. di nuyu njabootu Cerno Abuja bii fi ne. ak imaam ak imaam yi. imaam imaam lii. imaam lii. di nuyu bokki canaba yi fi teew yëpp ak bokki fi teew yëpp. mënuñoo lim ñëpp. mënuñoo lim ñëpp. ci sunu làmmeñ. ci sunu làmmeñ. waaye sunu xol tudd na leen. waaye sunu xol tudd na leen. Sëriñ Babacar Fall nag. Sëriñ Babacar Fall. nuyoo yooyu yëpp. nuyoo yooyu yëpp. ñu ngi koy dajalewaat. ñu ngi koy dajale. teg ko ci loxoom. teg ko ci sa loxo. di ko yëgal ni Babacar sëriñ baa nga lay yëgal ni sa jur sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane sa waajur sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Seck moo nu yabal tey jii ci yow moo nu yabal tey jii ci yow boole nu doomam boole nu ak doomam sëriñ Gora Seck sëriñ Gora Seck ak doomam doomam sëriñ Daouda Thioune sëriñ Daouda Thioune ak sëtam sëtam sëriñ Birane Seck sëriñ Birane Seck nu fekk fi mboolem ba nag nee nu fekk fi mboolem ba ñu bokk ci délégation boobu nu bokk nag ci délégation bi sa jur nee na sa waajur Baye nee doomam nga doomam nga xaritam nga xaritam nga wéttalam nga wéttalam nga léppam nga léppam nga ba tax na ba tax na sees sunu borom teg sees bi sunu borom teg muy khalifa bo xamni muy khalifa bo xamni dafa togal islam ci kaw suuf dafa togal islam ci kaw suuf suñ ta beddi kenn ne moom sëriñ sayul beddi kenn li muy ñaan yàlla mooy li ñaan yàlla mooy mbootu mi ko yàlla jox mbootu mi ko yàlla jox mboolem ku dib jullit mboolem kuy jullit yàlla yàkkalil ko ko yàlla yaatal mbootu moomu ba nga xaj ci biir ba nga xaj biir ndax mbootu moomu kat mbootu moomu kat yërmaande la ëmb yërmaande la ëmb càmmeef la ëmb càmmeef la ëmb barke la ëmb barke la ëmb ngëneel la ëmb ngëneel la ëmb fajuk la ëmb fajuk aajo la ëmb ndax dara raxu ko ndax dara raxu ko yàlla rekk ci rek moo ci ne yonent bi ci ne. nit ñu baax ñi rek ci ne. nit ñu baax ñee ci ne. kon nag bu la yàlla dimbalee nee bu la yàlla dimbalee ngay doomi réew mi ngay doomu réew mi wëlbatikuwaat wëlbatikuwaat di doomi région bi mu dëkk moom nekk doomu région bi mu dëkk wëlbatikuwaat wëlbatikuwaat di doomu département bi mu dëkk nekk doomu département bi mu dëkk te moom moom rek moo ci xalif moo ci di xalif département bi boo génnee fii jëm canaba nee soo génnee fii jëm canaba kon lu fi waay organisé kon lépp lu waay organisé muy jur jàmmi réew mi muy jur jàmmi réew mi di jur déggoog euh, doomu aadama yi ak doomu aadama yi ak seeni njariñ ak seeni njariñ xirtal leen ci dellu ci seen borom. ak xiirtal leen ñu seen borom. ku ko fa ku mu fa fekkul. nee ku mu fa fekkul. di ko fa fekk. ko fa fekk. Lolo waral nee lolo waral su ko jotam mayoon su ko ko jot mayoon kenn ñëpp ñëpp ko fii fekk ñëpp dañ ko fii fekk waxuma la ndawam di ñëw waxuma ak ndawam di ñëw kon ñun ñim fi yebal sax nee kon ñun ñim yebal jàppe nga nu ni jàppe nga nu ni ni jëmmam ni jëmmam waaye jëmmi boppam ko fi doy waaye jëmmi boppam moo fi doy ndax li nu fi dégg kat ndax li nu fi dégg mën naa defar àdduna bi mën naa defar àdduna waxuma la ak réew mi waxuma la ak réew mi kon mu ngi ñaan nee bàyyi seexa ngi ñaan mboolem luñ fi ñaan mboolem luñ fi ñaan ci ay salaatu ala nabi ci ay salaatu ala nabi ci ay askar ay askar Makhtar liñ fi jàng ci alxuraan liñ jàng ci alxuraan yal na yàlla nangu lépp yal na ko yàlla nangul yal na ko baawaan ci di la ci kenn ëppale yàlla bu la ci kenn ëppale président de la république bi nga xam ne président de la république bi nga xam ne sababu ñaan bi sababu joxe conseil boo xam ne nag maa ngi joxe ay conseil yoo xam ne moom la sëriñ bi joxe toujours Baye Cheikh di joxe toujours. mooy képp ku bëgg réew mi. mooy képp ku bëgg réew mi. war ngaa wane melowu. war ngaa wane melokaan woo xam ne. xëy nit ñi dinañ ko xeemeem. nit ñi dañ koy xeemeem. ci sa jëfin. ci sa jëfin. sa waxin. sa waxin sa doxin. sa doxin boo jëfee. boo jëfee ñu ñu xam ni yow mii. ñu xam ni yow mii. ku ñu war a roy ci yow nga ku ñu war a roy nga. boo jiitoo. nee soo jiitoo. ni bëgg naa dara. ni bëgg naa dara. di nga dal xeli nit ñi. di nga dal xelu nit ñi. soo waxee. nee soo waxee. mu tolloog teggin. mu tolloog ay teggin. tolloo ak kersa. tolloo ak kersa. tolloo njub. tolloo njub. tolloo mbaax. tolloo mbaax dina dolli yaakaar yi. day dolli yaakaar yi. population bi ngay yóotu. population bi ngay yóotu. lim jublu foofu rek mooy. mais li bàyyi sax jublu foofu mooy. muy président de la république. président de la république. di mboolem parti opposition yi. ak parti opposition yi. jug ni danoo bëgg réew mi. ne ku jug ni damaa bëgg réew mi. ñu toll ci fanweer. ñu toll ci fanweer. masalan ci lim. masalan ci lim. réew mi nekk ci kër 14 millions. réew mi nekk 14 millions. war na noo am kersa. war na noo am kersa. ñoom ñoo ñu yem ak 14 millions yooyu. ñoom ñoo ñu ma 14 millions yi ab cër ci biir réew mi ab cër ci biir réew mi jóg ni danoo bëgg réew mi jóg ni danoo bëgg réew mi te moomuñu ko te moomuñu ko di leen wan jeneen jikko di leen wan jeneen jikko ju andiwul ju andiwul jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyiduna Muhammad nga xam ni mooy defar àdduna bi nga xam ni mooy defar àdduna néewul nekkul ci ñoom néewul nekkul ci ñoom waaye seen baay la waaye seen baay la seen sëriñ la seen sëriñ la mu ngi leen di conseil mu ngi leen di conseil nañ dox doxin wu yiw nañ dox doxin wu yiw wut ko wutin wu yiw wut ko wutin wu yiw te xam ni néewul ci loxol kenn xam ni nekkul ci loxol kenn ku dul yàlla ku dul yàlla moom bi muy falu moom bi muy falu ku laajoon réew mi ni mooy laajoon réew mi ni mooy falu ñi ëpp ci nit ñi ëppoon ci nit ñi duñ ko joxoñ duñ ko joxoñ yàlla la soob nag mu joxi ko ci biir jox ko ko jox ko ko li fii ak mu ngi fi nag li fii ak mu ngi fi moom sëñ Canaba moom sëñ Canaba ak ku dib julit day gëm ci xolam ni day gëm ci xolam ni moom la fi yàlla teg ba kërëg yàlla di def leneen ba moom nag ñu ngi am yaakaar ci moom nag ñu ngi am yaakaar ci moom yàlla ko jàmmal yàlla yàlla am yéene yóbbu fi réew mboolem ñi ci biti mboolem ñi ci biti te dénkuñu leen réew mi te dénkuñu leen réew mi moo leen ci ëpp yéene moo leen ci ëpp yéene ndax kuñ ni yow akat ndax kuñ ni yow a boo sañoon lépp baax ah boo sañoon lépp baax ndax lu yàqu rek lu yàqu yow lañ koy joxoñ kon xalaatam kon daal xalaat président yéeneem ci réew mi ci réew mi te lépp di ngëneel lépp di ngëneel yàlla ko yàlla sottal yàlla ko yàlla sottal mboolem ku ku jóg te doo président te nekk ko président bokkoo ci parti te am yéenay defar am la yàlla jàppale yàlla te yéenay defar jooja ndax sëriñ ginnaawal kenn ginnaawal kenn ndax moo jaboote ñëpp ndax daa jaboote ñëpp wa ma zalika alallahi wa ma zalika alallahi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bari yi nga xam dañoo baax mel ni ñoom Assane Bay ñoom Birane ñoom Ibou Diouf ñoom Edouard Latouf ah ak Basir ñoom ñoom ñoo fi nekk bon dëkk bi nag fi mu nekk nii war nañu toog defar Thiès ñun dañ fi daje keroog bi ñu fi jegee daje dafa taw dañoo génn rek mu sóob taw ñu gën a ci tey yàlla alhamdulilah rabbil alamin kilifa diine yi nekk ci région bi ñëpp ko fi daje amul benn kër diine bu manqué di gërëm aussi ñi nga xam ne ñoo fi teew nekk ay rakk Babacar Fall di Ousseynou Diouf di Mamadou Mbaye ñoom dina gërëm di gërëm aussi kilifa kilifa diine bu nekk ndax fu ma limee damay damay juum fu ma limee rek damay juum mais da ngeen xam ne président de la république dañ ko war a ñaanal mu am jàmm bu amee jàmm mu am jàmm yàlla yi def nañ yàlla yi nangu na ñaan gi yàlla nangu na ko li ñu bëggoon cere ba yàlla dina ko def ñaanu maam amari ndaag yàlla nangu na ko projet bii ñu ñu dégmal fa yàlla dina ko def ndax lu baax la loo xam ne bu duggee kilifa yu bari seen doom dina ci liggéey néew doole yu bari seen doom dina ci liggéey ndax luy avancé loo réew mooy liggéeykat ndax tey lu ñuy wax ci président lépp bu bu bu emploi yi bëree kenn kenn du am lu mu wax mooy ñun loolu la ñu amoon loo xam ne dañ ko ciy wax di gërëm aussi ñi nga xam ne ay taskatu xabaar yi ñii bàyyi leen leen xel du ñu teg lu ñaaw du ñu wax lu ñaaw ñoo ngi fii ñoom ñëpp ku leen indi lu ñaaw ci dëkk bi dañ naan ñun bokkuñu ci ndax ñoo nga xam ne it ñoom am nañu responsable ci biir soo jëlee alxuraan am na fu leen di yàlla am na am nañu saa ñoom seen taaru bopp ñoom. ñoom lu bu ñu yàqee rek lépp yàqu taskatu xabaar lu doy waar la bu ñu la jayee ba nga génn loo war te génne rek coow bari mais alhamdulilah rabbil alamin suñ taskatu xabaar yi ñu yàlla booleel xamuñu lu ñaaw lu baax donc la ñu xam bu ñu xoolee sax. ñaari nit ñu xawa joté dinañu bayyi bu guddii ñu dox nank dem lijeenti ko ñew tok continuer leneen te yalla dafa bëgg lu baax di bayyi nak mbir mi ki nga xamne moy porte parole euh mbir mi di alhaji ngañ fay man def mako porte parole ki porte parole l'islam bi la ko def da ngañ ku baax la ñepp ay moromam lañu di gërëm ñi fi nekk ñëpp ak ñi ngeen xam ne ñi fi nekk ñi ma mën a tudd ñi ma tuddul di gërëm aussi daawda ka bi nga xam ne bi ma doxee ba sonn pour ma dajale kii yi moom moo ne bàyyi ma la ma jël sama oto jox ko ñi nga xam mu dox ci def ci lépp ànd ak ñoom dem indi leen fi di gërëm ñi fi daje ñëpp di gërëm ñi fi daje di gërëm aussi alhaji Demba Mbaalo ndax musa Mbaalo moko ko fi teewal mais taskatu xabaar yi maçon spécial yal na leen yàlla jàppale nii mooy ànd lépp lu ngeen président de la République yal na ko yàlla defal yàpp dañ koy ñaanal bu amee jàmm rek ñu am jàmm di ñaan aussi suñu benn mbokk léegi la fi woote Amadou Samba Kane mu ne bokk naa ko ak yéen lim bu ngeen fi doge joxe rek envoyé leen ma ko man ma def ci sama man sama participation fi mu toog nee na moom moo moo ngi def moom it ay dogam Amadou Samba Kane bu Lora jullit la di gërëm aussi boo xam ne encore moom it euh, ndax ñoom ñoon nañ ko gërëm mooy Siré Dia mi nga xam ne fàttewul kees di def lu rafet ci biir dëkk bi di rafetul ci biir réew mi di def lu rafet kees gi di ko jàppale yàlla na ko yàlla jàppale nit ñi nañu raxas xol yi defar suñu jikko yi ñu bàyyi bon boo amul njariñ

les imams et les oulémas de la région de Thiès ont décidé, en ce veille de parrainage, de faire des prières pour qu'un Sénégal de paix et de stabilité, pour un Sénégal de réconciliation et de passer ensemble autour de l'essentiel. Persuadés qu'ils sont, quand des moments importants dans la vie politique de notre pays, les imams et les oulémas ont le devoir moral de montrer la voie qu'il suivre pour que le Sénégal aille de l'avant. Dans la même veine, ils ont décidé de faire des prières en direction du président de la République. Parce que, parce que se retrouvant, parce que se retrouvant entièrement dans le bilan économiquement et politiquement défendable du président de la République. Ce que le président a fait de façon incontestable au niveau des familles religieuses, plus à surveillance de cette dynamique d'unité, de cohésion des imams urbains de la région De, de, de, concert avec le président Babacar Fall, le président, du président sur les règles du développement, qui est sensible aux préoccupations des imams et oulémas de la région de Thiès. Donc en concertation avec lui, ils ont décidé régulièrement, peut-être qu'aujourd'hui ça va considérer avec les parlement mais de façon régulière, de faire des prières en direction de notre pays pour un bon hivernage. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Sénégal a besoin de paix et de stabilité. Le Sénégal est un niveau de paix et de stabilité dans un, dans un continent de discorde et de troubles violents. Donc grâce aux prières de nos guides religieux, le Sénégal ne s'étira jamais dans la voie de la violence. Malgré le fait que certains souhaitent, avec l'enjeu, l'enjeu, et il faut le dire, l'enjeu aujourd'hui c'est l'enjeu du pétrole ça suscite beaucoup de convoitises. Le pléthore de candidats qu'on a, qu'on a constaté à Thiès est aujourd'hui la preuve que ces élections-là doivent être accompagnées de prières. Thiès est un ange, mais Grand Thiès, le plus, Grand Thiès sera la mère de bataille. Ça, le président va en est fortement conscient. Et nous demandons, parce que lui, sa politique, sa démarche politique est basée sur le social et le développement le social et le développement. C'est la raison pour laquelle, face aux polémiques vaines d'une certaine opposition, Les oppositions devraient dire, lui il a proposé une zone économique et spéciale intégrée de Tchénaba. La présence aujourd'hui très remarquable de guides religieux de Tchénaba est la preuve aujourd'hui que ces guides religieux adhèrent entièrement à ce projet qui va transformer qualitativement le la, situation du département de, pièces est dans, dans, un sens beaucoup plus large de la région de Thiès. C'est 50 000 emplois. 50 000 emplois, c'est un financement de 460 milliards. Tout est bouclé. Et le président Babacar Fall a presque entièrement financé tous les études qui ont accompagné la faisabilité de ce projet-là. Nous demandons de façon solennelle que le président de la République signe ce décret. Parce que là, les, chantiers de Thiès, quelle que soit leur médiatisation, c'est 86 ouvrages, c'est 46 milliards, mais jamais on a tenu compte de la donne emploi. Aujourd'hui, ça, a été une réponse pertinente face à ce projet, face à ce, ce, de chantier de Thiès. Donc nous demandons au président de la République, en tout cas, de signer ce projet pour que d'avenir la région de Thiès, pour qu'au moins que les Thiès soient chasse que le président le porte dans le

diine moo am solo te yàlla mooy fal euh, kilifa aada yi kilifa diine yi euh, yàlla moo leen fal loolu jarul warante li ñu soxla ci dëkk bi mooy jàmm ci jàmm jooju nag yàlla wax na ko ci alquran su xol yi àndee def benn dinaa bàyyi samay ndax te loolu moo loolu moo am dañoo war a xam ni suñu àndee nekk benn xam ni yàlla mooy fal wax yu baax yu bari xeebaate yu bari siisante yu bari xeexante yu bari du am ci dëkk bi li ñu soxla daal mooy liggéey te dama bëggoon wax ci gërëm suñu mag Babacar Fall bi nga xam ni moo am yéene bi mais xam tamit

mais il y a liggéey ci dëkk bi ñooy kilifa diine a suñ fi nekkul woon dëkk bi on am jàmm suñ fi nekkul woon duñu mën téye xale yi suñ fi nekkul woon ah on nekk des di wax ay élection des suñu on ci des añ li kilifa diine def ci dëkk bi qui ah, bokk na li moo ëpp solo li jàngalekat def ci dëkk bi moo au solo li militaire def ci dëkk bi moo ëpp solo li policiers yi def ci dëkk bi donc li ñuy def ci dëkk bi nguur gi moo ko waroon res te loolu dafa war a bokk ci programme politique dañoo jël diine teg ko ci kaw mais jàppale wuñ ko ni ko nit ñi moo res te loolu ban sens la suñu xaaree ba màggal ñëw ah, ba ba ba suñu. Euh, korité ñëw tabaski ñëw ñu yëkkati xaalis teg bi xaalis boobu kenn moo ko moom ba pare moo ko teg suñuy loxo ah ñu jël ko tegaat ko ci ci ci loxo kilifa diine mi ñoo ko moom ba pare loolu ñoom waruñu ci gërëm sax mais dañoo war a xam ni dëkk bi nguur gi am na yoo xam ni moo ci war a jàpp. moo ci war a jàpp. te kilifa diine yi fi ñu fi fi fi ñu nekk. Ah. te loolu dafa war a bokk ci programme politique dañ ko war a waxtaane ci programme politique dañu war dañu war a dañu war a doxal dëkk bi noonu ah teg leen ci seen place ngeen jàppale ñu doxal ah, dëkk bi kanam ci loolu daal laa leen waroon gërëm di leen sax ah, ah, xam ni li li xew nii mooy li war a xew ah ku am yéene ku am yaakaar ah da ngay ñaan ci yàlla woo kilifa diine yi jàppale la président Macky Sall ñu ñaanal nag. jiite ci ñaanal jàmm ci dëkk bi ñu koy ñaanal mu am li mu bëgg ñaan bi loolu la woon ñu ngi koy ñaanal mu am li mu bëgg ñaan jàmm ci dëkk bi xam ni tamit ñoo war a jàppale suñu bopp ñoo war a suñu bopp ñoo war a liggéey suñu dëkk bi ñoo war liggéey Thiès jëmal Sénégal kanam loolu daal laa fi bëggoon wax maa ngi leen gërëm Bagi, ini sebab sampai batai sekolah yaakaar naa ñaar mooy gànnaay lépp lu ñuy jóg muy wàllu àdduna war nañoo woo borom xam-xam yu rafet yi dëkk yàlla yi nga xam ne ñoo jeex dàq yàlla ñaar ndax xamuñu ndax dàq yi ñaar ndax dañuy jóg danañu jikko kon nañ ko ñu ni ko suma bi bay damay faral di def suñu waa ñu naan bis daara yi de war na leen boole ñu loolu gis nga rek man nit daara gi nga xam ne tey jii nii dafa boot daara su mot bi de cent cent enfants deux cent trois cent di leen di leen boot gis def ci ñoom xam kat moo tax am na yenn wax yoo xamante ne dañ koy bàyyi lépp lu doxal société bi lépp lu doxal ak yaakaar naa a dugal solo lool foofu jeex tàkk ndax def li société bi baaxee ñoom ñoo ñi nga xam ne tey jii nii ay borom xam-xam ñaaw lañ ay borom borom xalaat yu rafetul la jaaxal seen dëkk ba jaaxal seen dëkk bu boobaa tamit ñoom bu ñu am kàddu ndax boobaa dañ naan leen da ngeen a taxawal ci seen kon bu waree ñëw rek leen taxaw ndax da ngeen seen mbokk da ngeen jeexam baax ak leen may kenn leen sédd da ngeen cee am moo tax ñu woo leen Babacar woo ah, loolu weesoo ñu sax ñu leen sax fii leen ñaanal yàlla di wax li ah, yaakaar ni fii seen ñaan yu baax yi ngeen fi def yàlla ñu leen lii yàlla mooy ko tam deuxième mandat amiin parrainage bi nga xam ne suba lay tàmbali lépp lu ci jub yàlla nañu ko yàlla defal ko jàmm ak salaam. jàmm moo jiw lépp lu ànd ak fitna ñu jërëjëf yàlla xam lenn ba nga xam ne lépp luy jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla defal ko Sénégal ñi war a kon yàlla xam na ko ba kon nag kiiru as naa yóbbu mel ak dajul tamit jarul ku bis ko jotee la nga war a def na ko def dégg sa bopp yàlla defar solo ñu ngi kapal wu xabaar ko mën a yegg waaye ñu ci yéen saa su ñu ngi accompagné daanaka baax ko duggul ci tuuti moo ko ndax nit bu bëree njëriñ yaakaar naa ñëpp dañ koy fekk ñu dugal ci te Babacar projet moo di. vraiment fexe ba Assane teg la nga xam ne doomu Thiès dinañ ci mën a gis seen bopp lu mel ni zone ex de commune spéciale muy muy daan bëgg a def ba ci tene ba Edouard Bamba bi léegi daal di taw ma mais loolu toujours politique ak président jàppale rek bu dem ñëw rek ak loolu ko ñu koy def ci produit Thiès waaye lan ba tey nekk kii rek a tas kon Babacar Sow bu nekk yàlla jàppale tamit wax président de la République jàppale Babacar Fall waa kër askan bi kenn ko defal kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. asalaamaaleykum mbokki réew mi mbokki lislaam bi mbokki Sénégal yëpp man El Hadj Ngagne Faye porte-parole des imams et oulémas de la région de Thiès ñu ngi yëkkati kaddu ci ndigalu. imaam Alaaji As Baro Njëgën bi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mu jox nu ndigal pour ci bisu kan Alaaji Babacar Fall wax ci Babacar Fall yomb na yombul mooy jullit la di xarit ci borom réew yi te wax ji nu yëkkati kenn dong ginnaaw yàlla nu bëgg mu déglu ko dégg ko muy le président Macky illay bis bi nag defe naa ne ku seetaan ci télévision yi di nga xam ne illay bis bi leen rek la mooy appel à des élections stables et civilisées bi ci des mooy appel à l'unité et la cohésion des responsables à de Thiès bi ci des mooy lan prière pour un bon hivernage ngeen baal ma ci tubaab yi loolu

mooy kan Mamadou Mbaye xale bi nga xam ne fa tabaarakallaahu fees dell ak diplôme di directeur FONSIS nga xam ni organisme international boobu président dénk ko ko yàqu ci dara daa dolli ma yàqu dara dégg nga li wax na ñëpp booloo rek pour lan le 24 février bu ñu fi yàlla bàyyee président yëkkati loxo ñoom ñun muy seen ndam di suñu ndam ñun ñëpp loolu ku ne dégg na kii toog ak sunu wetam mooy kan la grand sëriñ de Thiès fa tabaarakallaahu borom xam-xam bi nga xam ni boo dee tafsir biram Gàmbi Mbay rek doy na ci adresse kër Cheikh Siraj Mali mii ni toog sëriñ si it wax nañ ba sonn fa tabarakallah léegi nag ma bëggoon am tuuti rek anecdote bu moo ci def muy ah Amar Samba Kane ku tudd l'islam tudd sëtu Cheikh Amadou Fouti boobu le jiite direction de la nature nationale nga xam ne barki démb ku nekk xam na balee Lyon di dem fële ci coupe du monde ay millions la ci def yo waaw lu tax mu ne dimbali président rek ñooñu ñoo jàppoo nag ne ci ginnaaw Babacar Fall Babacar nag leen dong dong la bëgg te leen dong la bëgg président déggu ko ci moom la bëgg imaam yi bëggal ko ko mooy leen muy zone économique spéciale et intégrée de Thiénaba ndax it nag kilifa boo bëgg ànd moom doo jàpp ca conco ya da lay rëcc te président de la République jullit la ndax daan ni c'est l'ami des chefs religieux ñu ni Babacar Fall ak ñi mu àndal Ousseynou Mamadou Mbaye Ablaye Dieye ak Mamadou Dieng ñan la ñu ne l'ami de des des l'ami de imams kooku man kooku dimbali rek la moom nag mu ne dafa bëggoon imam yi bëgg bëgg li ñu bëgg lan la mooy zone économique spéciale et intégrée de Thiénaba cinquante mille emplois waaye kuy kuy def loolu yaa ngi dimbali président mhm. budget bi ñaata la financement quatre cent soixante milliards fan fii ci Thiénaba président ni mu def jam ñaan def ko jas def ko sàngara nga xam ne tey boo ñëwee a naa biir waaye loolu la Babacar Fall bëgg ci ndimbalul yàlla bi am ndimbal ak ndimbalul président de la République mu signé décret bi xale yi liggéey la jeunesse jigéen ñi liggéey ñëpp liggéey te loolu defe naa ne yëkk yëkkati emploi di dimbali président de la République ni Babacar Fall ak rakam yu baax yi noonu noonu lay mel loolu nag moo doon illay bésu tey bii na imaam ulemaa wi ak ñepp dajalo jang dalal kan yalla loxo bu ñu ko tàllalee loxo mo yalla ma indi ku mu yan faddu bu ma indi lay baax li ma jeex mukk bu ko defé ñu ñaan comme ni ma ko waxee ci njaal benn waaye des élections stables et civilisées bu mu paree ñu def appel à l'unité manam ñi nga xam ne dañoo sax bëgg a ku ngeen bal ma ci wax bi di siisaate nan bàyyi yoyu te jappo mm-hmm. lu ko moy fii ndam rek lañu bëgg te du ma tudd leneen li ndax le contraire de ndam bëgguma ko tudd ci ci kon président appel la appel bi lan la les imams et oulémas de la région de Thiès ak mboolem kuy kilifa diine tey jii nag li fi daje doy na sëkk boo limee fële li fanaan Touba Tivaouane Ndiassane El Hadj Amadou Baro Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñëpp ñëpp daje la doon tey grand sëriñ bi di toog ak tout les xam ni ñoom ak Siré Dia mi nga xam ne directeur de la poste ma nga mu karam woo na ma ndeysaan ni ma alaaji ngañ dégg na appel te bu soobee yàlla bu mu ñëwee lu ko def ci président fukk naa def junni Ousseynou ni ko déedéet boo defee junni ma def ñaari junni Mamadou Mbaye directeur FONSIS ni ko ku def ñaari junni ma def fukki junni am Ablaye Ñing Ablaye Jéy xale bu baax bi ci loxo ni ko def ñaari fukk ma def ñeent fukk fa de l'école nga xam ne fa tabarakalaw mooy bàyyi jirmi ni ko def nangam ma def nangam kon nag président lii may wax man ci turu imaam yi ak ulama yi waay waay waay waay Sall déglu nu waay déglu bi nag mooy def nañ déclaration de waaye bi rek lañ bëgg nga déglu ko xool ko seetantal ko xam ne Babacar daal laajul dara leen doon laa bëgg élection jaar ci jàmm ñaareel ba des emplois mu ni nag 460 milliards waaye kenn du ko bàyyi muy wàcc am te 50 mille emplois mu ne moom la bëgg fi def fii ci Thiénaba

saa yu ma ko gisee dootuma wax muy Baye Mori Mbuub di abdul xuraan borom xam-xam di sama rak bu ma ko gisee dootul wax ak Serigne Mor Diop Ndiaye sama doom ak toute la presse kon léegi ci turu imam et ulama ñu ngi remercier Assane Mbaye ñu ngi remercier Ibou Diouf ñu ngi remercier Edouard ñu ngi remercier Ousmane mi nga xam ni